ci teew ci jotaay bi mhm. jotaay bi nga xam ni ñiñ bëgg a waxtaane bëgg a wax du tax nga wax ci ñoom mhm. ñoom ñooy bëgg nga wax ci ñoom nga wax ci ñoom hmm? waaw ma ne hmm. a wax mhm. bari xam-xam hmm. mën a wax taxul nga wax ci ñoom ñoom ñooy bëgg nga wax ci ñoom ñu nga wax ci ñoom ñuy ñaar ñoo xamante ni tabaarakallaahu bala ñuy tàmmali dañuy nuyu bu baax ak di ziyaara suñu baay sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour alxalifa di ko ñaanal yàlla mu dund lool yàgg fi lool ànd ak wér ak àggale mission ba ko Cerno